Moustapha Bassirou Guèye maa ngi lay nuyu. soxna si maa ngi lay maa ngi lay Moustapha Bassirou Guèye nga nekk si collectif contre la cherté des coûts de connexion au Sénégal lan moo leen poussé ba ngeen taxawal collectif bi. waaw euh, maa ngi lay maa ngi lay maa ngi ci laaj bi donc euh, li ñu poussé ba ñu taxawal collectif bi dañu seetlu ni que Sénégal connexion daf ci jafe. non seulement daf ciy jafe mais maanaam couverture am parce que tey boo demee ci dëkk yu sonn yi ci biir dëkk ci biir ci biir ci biir réew mi dëkk yu sonn yi doo am couverture réseau maanaam doo am réseau ba pare non seulement doo am réseau mais réseau bi dafa cher te loolu nag mu nekk loo xam te lu nekk la ci askan yi te jàpp pratiquement moment bi ñu nekk Sénégalais lépp lu ñu def rek internet lañ koy defee par la suite nag ci lañ la naka la ñuy def ba taxawal benn collectif li nga xamante ni moom moo am li opérateur yi def moom moom teeral nañ connexion bi ba pare couverture amul loolu moo ñu poussé à ce que ñu taxawal front bi pour jàmmaarloo ak opérateur yi pour mën a xeex lool pour ñu wàññi seen prix euh, collectif bi bi ngeen koy taxawal ab pétition ngeen lancé naka la demee si réseaux sociaux yi ngeen ko lancé nit ñi adhéré wala comment ça s'est passé naka la demee exactement voilà collectif bi bi ñu koy lancé dañu toog waxtaan ci suñu biir entre amis connexion seer na Sénégal lan mooy solution te pratiquement suñu activité yi def yëpp connexion lañ koy def ci lañ nag waxtaan def benn réunion en ligne waxtaan suñu biir daal di lancer pétition bi Sénégal yi adhéré bi mais dañu gis ne bi ñu lancer pétition bi euh, yi ci bëgg boobu dañu adhéré projet dañu ko suñu pétition bi loolu dafay wane ni que Sénégalais ñoo ñu a la yàkkam ci ñoo ñu a la yàkkam ci loolu tey ñu bëri amoon nañu muy woon seen xel pour def ne amuñu woon chance bi kon bu ñu taxawee dafay yombal vraiment pour Sénégalais ñëw jàpp ci projet ñu mën koo doxal donc pour pour wax la ni la pétition bi bokk na def nañ réunion en ligne pour mën a démarrer loolu pour mën a taxawal pétition pour le moment def nañu réunion pour mën a ndax éventuellement wax fi nga xamante ni lañ war euh, bi nga xamee ni taxawal ngeen collectif bi actuellement euh, yan nit ñoo si nekk ay ndaw la ay mag wala wala ñan exactement ñoo bokk si collectif bi. waaw collectif bi comme ni nga ko waxee comme ni ma ko waxee am na ay mag am na ay ndaw am na ay kilifa waaw parce que ñu ci bëri tey mën naa ni ay ingénieur ay ingénieur informatique ñu bëri nañ ci torop parce que ku wax informatique wax ku wax internet di nga wax informatique ku wax informatique boo tuddee ingénieur informatique parce que tudd nga ñu gën a kawe donc ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ay mag ay ndaw Sénégal tout bon ñoom ñëpp ñu ngi ci àndandoo ko ak ñun àndandoo ñun ci liggéey bi ñu war a ay plan d'action pour xool fan lañ jëm. Euh, tey jii si seen plan d'action boobule euh, est-ce que mhm. da ngeen di fas ne dem ci euh, buntu këru opérateur yi amal ay sitting da ngeen di def marché ay conférence de presse ban type de de plan d'action ngeen bëgg a def comme ça ñu dégg leen bu baax a baax ba wuyu si leen si li ngeen di xeex. waaw li ma mën a wax ci noonu tout cas ñu ngi teg ay plan d'action. ñu ngi teg ay plan d'action plan d'action yooyu bi ci njëkk mun naa ni xam nañ fan yii di ñëw bu soobee yàlla dinañ def benn euh, conférence de presse dinañ def conférence de presse bi fan yii di ñëw beneen bi ci topp mooy écarter wuñ nag bu fekkee opérateur yi def wuñ bilan fi mu nekk écarter wuñ organiser ay sitting wala dem ci buntu këru opérateur yi def ay sitting wala def manifestation te incha allah bokk na suñu suñu suñu suñu plan d'action maanaam bind ay lettre dem déposé ko ci opérateur bi déposé ko ci direction direction bu communication et puis ARTP déposé ko ci au niveau de la ministère au niveau du ministère pour au moins m mën m dégg xam ni ko vraiment li ci lii loolu daal en Euh, ci question bi nga posé loolu moo nekk ci plan d'action bi pour le moment. Mhm. ñu gis ne bi ngeen euh, sampee déjà collectif bi rek am na opérateur yoo xam ni ñu ngi gaaw gaawantu di wàññi seeni prix euh, loolu est-ce que seetlu ngeen ko waaw wala déet est-ce que dina tax ngeen dellu ginnaaw waaw démb am na lu ñu seetlu démb benn opérateur sama ñaari opérateur ñuy def promotion ñu ne dañuy def promotion ñu ne ñu am mais nag pour man wàññi dañuy jéem a nax Sénégal dañuy jéem a dox seen kaw ñu ko maanaam réorientation la ñu def réaménagement lañ def mais wàññi wuñu parce que wàññi ku ko gis bi nga xam ne wàññi na ko te bu ñu wàññi woon dañ xam ne sénégalais na ñu wàññi ko bu ñu ko wàññi ñun dañu dañ dañ dañ dañuy bàyyi ñu parce que li ñu bëgg mooy ñu wàññi ko léegi nag ñoom li ñu def man si bëgguma ko wàññi dañu réaménagé rek mais nag li ñu bëgg ñun mooy ñoom ñu wàññi ko ba nga xamante ni sénégalais yëpp ñun suñu la jot te loolu moo nekk suñu combat Euh, tey jii ban appel ngeen di euh, lancé autorité yu bees yi par rapport ak cherté connexion bi nga xam ne euh, ñëpp a ko nemmeeku. waaw li ñu lancer autorité sénégalais autorité yoo xam ne fi je pense que lii dafa bokk ci ñoom seen combat dafa bokk ci tax ñu fal parce que ku nekk xam na ni autorité yi nekk nii réseaux sociaux yi participé nañ bu baax ci seen ci seen accession au pouvoir bu ñu exige nguur réseaux sociaux par exemple léegi nag appel bi ñu lancé dañuy lancer appel état bu Sénégal jaarale ko ci ministère de la communication ba ci ARTP ñu wax ak opérateur yi parce que sonal nañ Sénégalais yi parce que ku nekk xam na ne opérateur dañuy ñàkk deretu Sénégalais ku nekk xam na ne opérateur yi dañuy utiliser les Sénégalais parce que connexion cher bi ñu seer Sénégal jéggi na dayoo boo ko comparé yeneen dëkk yi ku nekk xam na ne cher bi ñu seer ci métti te loolu lépp nag je pense que ni état une fois que mu wax opérateur opérateur bi man a wàññi seen njëg tàngoor léegi moo tax encore une fois dañuy lancer waat appel état bu Sénégal na wax ak opérateur yi tant que opérateur yi nag seen seen li nga xamante ne moom kii wàññiwuñ ko wér gi ram fi ñun combat bi ñu mën a duñu ko bàyyi duñu ko arrêté tant que opérateur yi wàññiwuñ ñi nga xamante ne ci lañ nekk nii tant que ci lu ñor ñun lu nekk ci ñun ci donc message boobu laa bëgg a laaj état du Sénégal nag le ko bëgg leen tuddee am na opérateur boo xam ne ki ko moom euh, sénégalais la mais dañu gis ni euh, sénégalais yi daal jàppale wuñ ko bu baax pour dooleel ko aussi. waaw euh, opérateur boo nga xam ne Sénégal moo ko moom. non waaw ñun gis nañ ko mais xam nga nit it danañ ko mën a jàppale. il faut que tey man ñu nekk ci àll bi wala yow keneen ku nekk ci àll ba kooku couverture mën ko egg tey bu fekkee moom dafa am benn benn couverture boo xamante ni réseau bi egg na fépp tey je pense que Sénégal yi mënuñ taxaw jàppale ko ak mu wàññi période yi ba nga xamante ni dina bokk bi bokk ak période bu ko defee Sénégalais mën nañ gën a jàpp amoo couverture réseau bi war wàññiwoo sa prix je pense que Sénégalais taxaw a jàppale parce que li ñu ko def mooy dañu bëgg mu yomb ci Sénégalais ak bu fekkee dëppoo fee dëppoo fi te li ngay def gën a yomb gën a baax li Sénégal rek wax dëgg yàlla damay préféré jël li nga xamante ni ci fi dëkk moom lay def donc comme combat bi dafa am combat de principe la mooy lan ñu wàññi coût bi ba pare def am couverture fépp donc kon képp ku nekk ci loolu Sénégalais je pense que dinañ la jàppale nga dëkk Sénégal nga bañ a vraiment dañ lay jàppale ci loolu kon donc kooku opérateur boobu li ñu koy ñaan mooy li ñu tuddee Sénégalais jàppale ko. Mm. nga wàññi kuur ba pare na fexe ba couverture am ci Sénégal ñu mën ko jàppale incha allah. waaw peut-être dernière question est-ce que euh, bon est-ce que si seen xeex yéen euh, da ngeen di def focus ci connexion bi walla da ngeen di wax si wàllum télécommunication maanaam téléphone bi yeneen euh, mbir yi yeneen service walla da ngeen di focus ci service internet bi. waaw pour le moment. dañuy bi li ko li ko gën a apporté moom mooy dañuy def focus ci ci euh, def focus parce que surtout internet nag di nga tudd télécommunication di donc euh, kon ku tudd internet di nga tudd appel ku tudd internet mais suñu combat focus bi dëgg-dëgg ñu ngi koy def ci ci ci ci dafa nekk loo xamante ni maanaam mu mënul ñàkk dafa nekk bokk ci quotidien sénégalais ba pare jamono bi ñu nekk bi ñu ne connexion dafa nekk loo xamante ne tey ñu bëri ci la ñuy gañ seen gañtoon ci la nekk nit dafay toog këram di def vente en ligne ñu toog këram di liggéey ci wàllu ci internet léegi bu fekkee noonu daf ko jafe wala nan koy def croit nan koy defaat encore dafay seer je li mu soxla te dootu ko mën a amati te ñu bëri tey ñu am seen xaalis à travers vente en ligne ak leneen leneen ci kon vraiment loolu war nañ leen jàppale vraiment yombal connexion ba nit ñi mën a mën a mën a am lu mu bëgg ci euh, kon nag euh, Moustapha Bassirou Guèye maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi tontu bi nga tontu suñuy laaj. jërëjëf soxna si moom man maa ngi di sant bu baax ñu daal yombal ñu yombal ñu mën a waxtaan ak yéen waxtaan ak sénégalais yi. ci problème bi nga xamante ni moo am te ñu nekk ci incha allah. jërëjëf Moustapha Bassirou Guèye may fàttali ni yaa ngi nekk membre ci collectif contre la cherté des coûts de connexion au Sénégal jërëjëf. jërëjëf.